mais ëmb xam nga yow moomoo sa bopp. Hmm. su ma robinet bi tuuti. Hmm. damay ñëwaat dama xaw a sob na ah. bu Balla Gaye si nekkee vainqueur. Hmm. Sénégalais wañ sa loxo. Pikine waa ñëpp wañ sa loxo. ne la carrément bëri jéeg Balla Gaye parce que leeral la parce que moom nee na bi muy ñëw bu njëkk ba. daa xuloo ak bi muy ñëwaat. wéeru ah. ñaari excuse xamula woon xamula woon beneen bi. wérul woon. léegi nag comme clarification wala boog seetali parce que man dégg naa sax nga ne bëggoo. seetali ki am na waaw seetali am na maanaam. doggali doggali. waaw <laughs> léegi euh, lan mooy problème bi boobaa. non non mooy lu ma la expliqué rek cadre boobu xam naa lu mu ci mën a sori quoi. Hmm. mooy lu mu la wax rek. xam hmm. parce que wax naa li may wax ba pare. te tamit aussi nit dafa am cadre. je pense que euh, gisuma man bokk. li war a tax man ma bëriwaat ak moom quoi toujours si loolu quoi. mais euh, man man man bu ma tegalee 500 millions ci table bi tamit da ngay bëri ji. waaw mu nekk un milliard. mu <laughs> <laughs> nekk un milliard problème de xaalis xam nga toujours si loolu quoi.